waaw Cheikh Mamadou mhm. nga jàngatal ma ko. waaw ndax euh, dafa mel ne bari yoo xam ne jamono soxlan waat na ñu xool ndax boo seetloo bi fi euh, sëriñ bi di jóge Serigne mhm. tubaa ci boppam bàyyi Cheikh Mamadou Moustapha. Mhm. Cheikh Moustapha al Karim euh, am na ñetti ndénkaane yoo xam ne ñoroon na sëriñ bi lool. mën ngaa wax ne ci jamono yi Serigne Fallou ci la àggi. benn bi da cee joxe woon ndigal yeneen ñaari yi da koo bindoon. bu njëkk bi oustaz mooy jumaa ji. Eh, dafa melni ci ak ayam la ag mu jité ko ubbi ko def ye ca war lolou man jangane nga ñu defal ci jumaaji ci bopam jangane mi moy jamono ji ñu tollu ci diko tabax mhm. tollu ci diko defar mhm. tollu ci diko agalé mhm. di door joge ci guerre mondiale du won lu yomb defe na deuxième guerre mondiale la pété waaw du won lu yomb waaye taxaw buñ ci taxawon ba ba doxé ca woote magal gi taxaw bu rëy rëy la bu fess señ mbacké deug la ndax xaw xaw ma Afrique gii day mhm. waaye valeur u jumaa ji de boo ko ci dugalee waaw surtout sax nag ci jamono jooja oustaz surtout ci jamono jooja mhm. nga taxaw fa tey nga yëg ne ay mhm. milliards yi milliards moo ci nekk du dëgg te kat wutiwuñu woon budget bitim réew déedéet wutuñ fenn financement wutuñ wàllu fenn <laughs> loolu beneen affaire la. Mhm. loolu suñu fàlloo ko def rahmatullahi alayhi radi anhu ca mhm. jataayam ca mhm. xilaafaam. Ah. am na solo oustaz beneen bi ci des mooy eh, xam nga bi Serigne Touba jógee 1927. 1928 rek ci la sëñ Fallou demoon ajali ko màkk. waaw te fekkoon Serigne bi yéene woon ko lool. léeg-léeg ma dégg ci sa auditeurs yi kenn woole ci soppe yi ne la damaa a ajali sama yaay màkk waaw nga ne ko wutal ku mas aji mu ajali ko waaw moom ci ba muy dem mu tànn mbooloo mu bari ñoo xam ne ñëpp mas nañoo aji màkk waaw ànd ak ñoom dem aji te sëriñ bi ci boppam moo bindoon wax ne wax wala si anqa gis mi an siyaaratihi laakin lisaani lahu kal xal bi sawaaru maanaam wane ne aj màkk daal moom lu ma bëgg la waaye nag xam nga context yi mu nekkoon résidence surveillée yi ci ajo yooyu jooju laa bëgg nga décortiquer waaw moo di euh, ci jëfi suñu fàllu mhm. ajam googu dañ koy fàttaliku mhm. ba bàyyi ñu sàngoo suuf ndax dem nga demul moom dong dem nga jafe woon na mhm. Mhm. booba def naa bato la ñu demee waaw la ñuy demee weer yu ngay demee mhm. ay weer ngay am wallaahi jaar baytal maqadis door na nga dem waaye teewul mu ànd ak mbooloo moom àndal ànd ak nit ñam àndal di jëmmal loolu nga xam ne euh, sëriñ bi maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala moom la jox ñoom joxoñam ya qalbi law fi itaabil jismi takraaru li annahu lil hudaa wa nuuri jarraaru tabarkàlla moom moom moom moom te ci raayam nga am solo googu donc loolu bu ko sëñ Fallou jëmmalee mm-hmm. jëmmale ko na ko jëmmalee mm-hmm. yëmul ci boppam xanaa mut mm-hmm. ay nit yoo xam ne ca ci yoon wi ca xilaafa ga mm-hmm. ay nit li qualité lañ yoo xam ne tabarakallah foo leen takk ci dimension weesu nañ ko mm-hmm. mu ànd ak ñoom jëf jëree jooju mm-hmm. sëñ Mbàkke loolu àdduna dëkk bi ko fàtte mukk ba la xiyaamati réew mi du ko fàtte dëgg la radiyallahu taala anhu wa am na solo am na solo oustaz yaa ngi waxtaan léegi ci mbirum daara ak surne daara yi nga xam ne moo ci aju xam nga du jumaa ji noppee la mu njëkk a def mooy taxawal ab jàngukaay waaw bi nga xamante ne mën nga ne ñi génn ci jamono jooju yëpp ci wàllu xam-xam ak yëpp foofu lañ jàng mu def ko ci biir jumaay Tuubaa ji fa la defoon eh, maanaam jàngale moomu ma wax la léegi ne la ñetti yëf yi nga xam ne sëriñ bi da koo dénkaane woon mhm. benn bi mu joxe ci ndigal ñaari ñu bind ko mhm. benn bi mooy li ma lay wax léegi ci aj màkka gi bi ci des mooy bi mu waxee ne li Moustapha li banal xuduusu madrasatun mhm. ba ba bayit wa jeex noo ñu jàngatale taxawee ab jàngukaay solo si sim am ci diggante sëriñ akub taalibi waaw ndax su amul su jàngukaay amul sëñ Mbàkke réer day tàmbalee am te dégg nga ca bayitam wa waaw wa ma nahaakum fa nahyuhu ila dalali yantami mm-hmm. bu leen tee jàng rek sànq na leen kon nag a Cheikh Mamadou Fadal mm-hmm. samp jumaa ji mm-hmm. dafay samp jaar ci biir mel ni na ëshar meloon borom xam-xam di ci feeñe boo ci toogee tey euh, sëñ aas jaxate ba mu max la ñu génn ci jumaa ji da ngay gémmiñ ah ak niñ leen di jàngalee foofa mm-hmm. nga xam ne xam-xam boo soxla mm-hmm. boo ñëwee ma nga fa mm-hmm. bi ñu ñëwee ba def daara kaamil nga xam ne téere boo soxla boo ca demee ma nga fa loolu tax na ba pénc ma tey gis nga péncum jàng la dëgg la la nekk ci kàng ci Tuubaa nga xam ne bind nañu kaamil te duñu ko xool la ca nekk ci gone yu jigéen ñu bind kaamil la ca nekk ay woroomi xam-xam bu ñu demee rawdu rayaaxiin da ngay xool ne ca ne ci ay boroomi xam-xam ak yu mel noonu mm-hmm. te li ëpp ci ñoom buñ jaarul ca daar ji jaar ci loxol ko jaar ca daar jooja mm-hmm. Mm-hmm. loolu liggéey la bu rëy rëy sëñ Mbàkke bu amam solo ba xam bi ak Cheikh Mamadou Fadal moo ko taxee woon xam naa yooyu yëpp ñi nga xam ne ñooy dem ca Kazu Rajab bi danañ ca doyal macha allah